di président conseil économique social environnemental di Abdoulaye Daouda Diallo ndax dina jàppale candidature Amadou Ba su nekkee loolu la ndax daf koy jàppale lu ci leer moom mooy ndaje am na diggante kii di Abdoulaye Daouda Diallo ak président Macky Sall ku bokk ci APR lii la ñu wax ñoom ñaar tase nañuy waxtaan ñaari waxtu président déglu na ko wante ndax dina ànd ak Amadou Ba wala déet mënuma ci leeral dara mu nekk lu lëndëm soxal kii di meeru bokk Dialloubé 9 septembre bee weesu coalition Benno président Macky Sall tabboon na seen candidat di Amadou Ba ci waxtu ci topp gis nañ ni am nañu ci ànd am nañu ci àndul am na sax ñu gedd am ñu noppi ba ba léegi comme Abdoulaye Daouda jàlloo boobu ba léegi nag am ñu ci wax ne ndaje am na diggante amadu Ba ak Abdoulaye Daouda jàlloo loolu am ñu bokk ci président présidentielle ñu ko weddi ne formation boobu dara wéru ci ngir lëkkaloo bi nga xamante ni moo soxal ko coalition benn Bokk Yaakaar dara leeragul la ñu nekk ci politique bi ci ginnaaw Amadou Ba loolu laaj la boo xamante ni mën na leen a jural ndam wante fi mu ne nii amul lenn lu ci leer